loolee nag dafa bëgg daal yàq ànd bi nga xam ne opposition bi ma ngi koy ànd ndax Karim Wade bu ñu ko am ne amnistie amnistie Khalifa Sall reconfiguration politique mooy am choc des ambitions am na yeneen analyse politique yoo xam ne ni ñu gisee mooy Macky Sall su amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall la mu sa jublu mooy néewal doole Ousmane Sonko mi nga xam ne maanaam dualité bi saf na sàpp digganteem ak Macky Sall yéen a kaay gii di ñu xëy fekk fa ministre Abdoulaye Sow mi nga xam ne jamono ji moo santaane ngir panneau publicitaire yi ñu jëli ko ci Ndakaaru nee na nag ñu koy dindi ci Ndakaaru ndakaaru loolee amul yenn xoqutal yoo xam ne dina tax mu daal di ciy deltu ginnaaw wala ay menaces wala ay santas yéen kaay gi de Les Échos Sud Quotidien ak Vox Populi xëy dañu xibaar nañu ni ki démb ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew di maître Malick Sall ma nga ci assemblée nationale ngir nag défendre ab budget ma waaye nag waxaat ci ci poste premier ne njiitu réew mi di Macky Sall na ko indi ci réew mi yéen kaay gi de Le leer na poste premier ministre indi war nañ ko ci réew mi ji gi nee na ni ki démb assemblée nationale tàng na jër ndax maître Djibril Wara nee na nag lu jëm ci dossier Adji Sarr ak Sonko loole nag dañu ko war lijjanti ba mu leer naññi ndax mbir la moo xam ne mbir mu doy waar a doy waar la waaye nag am na beneen jigéen boo xam ne kookee nag am na jëkkër sax te dañoo yegg si kawam dañu ko violé te ki ko violé nag njort nañu ne ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf la te loolee tamit lu ñu war a lijjanti la waruñu ko nëpp nëppal yéene kaay gi dalee si ko na en tout cas li am ba des la maître Djibril xam ne am na jëkkër ba tey ci biir journal bi ñu xëy fekk fa Jéema Jaay Ba kooke nag député la yekk na musiba ak mbelengaan député Abdou Bara Dolly ndax ne na ko yow góor jigéen nga loolu la ko wax ni ki démb ci assemblée nationale nee na ko taisez-vous espèce de góor jigéen yéen a kaay ne nee na assemblée nationale a kaay gi de la sa xëy di ñu xibaar naan ñu député yi nga xam ne joxar bi nañu leen baaraamu tuuma ci la jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique ñaar fukki fan ak benn ci weer wi danañu leen dégloo yéen a kaay ñu xibaar naan ñu yaana maar ak Fra France Dégage manifeste manifestation bi nga xam ne moom la ñu bëggoon a amal démb ci ajuma ji dañu ko mujj dàqandi ba ajuma ji nga xam ne moom la ñu ma la ndax am na ñenn ñoo xam ne ñoo si dox tànki jàmm yéen kaay gi di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñoo taxawal benn orchestre boo xam ne jigéen ñi la tudd jamono ji mooy toj réew mi ndax ñoom nee nañu ginnaaw nag ñaari single yi nga xam ne génne nañu ko la nga xam ne moom lañ sa waxtaan nag mooy violence faite aux femmes am na album timit boo xam ne génne nañu ko wax nañ ci seen style de musique nee nañu dañuy def nag mbalaax di def reggae di def rap ñoom bëri nañu ay projet projet seeni projet bokk na ci tournée nationale boo xam ne ñoo ngi koy waajal ak beneenub album ñoom ñi nga xamante ni orchestre jigéen ñi la ñu tudd nee nañu tamit dañuy accompagner musiciens yi nga xam ne amuñu orchestre nee nañu tamit gis nañu ne lu jëm ci wàllu musique jigéen ñi dañu leen si ginnaaw walla te loolee dañoo bëgg mu jeex yéene kaay gi dee sat xëy yóbbu ñu diwaanu Angleterre Premier nee na bataay bi nga xam ne moo am jamono ji mbir mi jéggi na dayo diggante Manchester City ak Liverpool ak Chelsea yéene kaay gi nee na ca Espagne foofee tamit